asalaamaaleykum mbokk internet Sunugal 24 point net fol bu rafet mu ngi leen nuy di leen ziar di leen jaajëfal waa tey nag ñu ngi fii ci géejawaay euh, ci salle de musculation bi seet ci ki nga xamante ne mooy Naaru Sokaas ndaanaanu bëre ndaanaanu làmb euh, dëkk ca Pikine moom nee naa la Naaru kenn doot ko présenté du ma def lu dul rek ànd ak sama caméraman muy Daniel ñu dugg xool ci biir xool Naaru ni muy entraîné daal di waxtaan ak moom xuusi question yi foofu daal di wàcc Daniel ñu dem xool voilà seen émission Peul Fun Time nee naa leen à chaque fois nii laa koy defee ba tax na maa ngi toog ak ndaanaan bu mag bi nga xamante ne mooy Naar Sokaas du ma def lu dul nag bàyyi ko ak àdduna ne ko nuyoo ak àdduna fan ak soppee ñi seetaan fii ci Sunugal 24 point net naaru maa ngi lay a di la jaajëf. ça va bu rafet maa ngi lay delloo nuyoo bi di la wax waaleykum salaam wa rahmatullah di nuyu àdduna bi yëpp di siyaar ñëpp di nuyu nuyu waa Guédiawaye di nuyu banlieue yëpp ah di nuyu képp koo xamante ne rek yaa ngi. yaa ngi ñu a seetaan quoi. tey naaru ba ma doon wax kan mooy naaru lan nga may. waaw naaru benn xale la bu juddoo saint ndar laa juddoo mais Pikine laa defee suma lépp ah waaw fa laa tàmbalee sama lépp fa laa commencé quoi. te ñu fekk la fii ci salle bi nga xamante ne mooy Guédiawaye nga jógee Pikine ñëw fi di entraîner lan moo tax nga ñëw ci salle bi nga xamante ne mooy Guédiawaye nga fi entraîner da nga jàpp ne li ngay ut fii la nekk. waaw temps yi dafa dafa fekk ni temps yi dama dama tuxu si côté bi nii bi may préparé suma combat sama dernier combat bi quoi damaa woon côté bi dëkk fii parce que xam nga damay jege géej gi salle musculation bi tamit soriwuma et puis ci laay gën a mën a am récupération bi ma soxla woon quoi te alhamdulilah maa ngi ciy gis sama bopp. ñu gis sa combat ak double moteur mais dañuy ne avant sa combat ak double moteur dañuy ne naaru avant combat dafa réeroon kenn déggatu moo nekkoon problème bi kenn déggatu la. waaw ci li ma nekkoon moom mooy liggéey rek dama ñëwoon comme ni ma la ko waxee léegi làq ci côté bi xam nga di liggéey parce que bu may ñëwaat tamit war na am neneen ni ma ñëwaate quoi xam nga looloo taxul ma ñëw làqu ci côté bi te yaakaar naa tamit bi ma ñëwee li ma doon li ma doon li doon bëgg nit ci nit ñi gis ko tamit yaakaar naa am na ñu ko gis ci man daal ndax euh, euh, ñu bari ñu ngi naan ma am na soppee soppeeku bari bu nekk ci yow làqu bi peut-être moo tax quoi. mais a liggéey par Euh, loolu tey lan ngay wax ñi nga xamante dañ ne naaru kaw gi la gën a liggéey par rapport ak suuf. non liggéey naa lépp nag liggéey naa kaw liggéey naa suuf parce que dama doon dem dune dune yi jege na ma na ma dama ko doon def di ñëw fii salle musculation tamit di dama liggéey mu liggéey bu metti liggéey liggéey bu metti kaw ak suuf laa doon job te xam nga njool moom suufam gaaw la gaaw la rëy et puis man li may liggéeyee suuf liggéeyuma suuf pour suuf rëy mais dama koy liggéey pour mu dëgër waaw. ñëwee ci euh, stade bi jouru combat bi li nga takk ci ay gàllaaj bariwul lan la lu tax nga def parce que da nga ñëwoon pour xeex ba tax takkoo gàllaaj yu bari wala lan moo tax nga takk quelques gàllaaj yooyu mun nañ ne soo ko doon compté tey ñett la mooy bi nga takk sa ndigg bi nga takk sa loxo ak bi nga euh, kii bi nga takk noonu. waaw xam nga tey jii euh, man boo xoolee sumay combat yëpp doo may gis may def may takk takkaay bari bëri affaire yooyu noonu mais du ci loolu kese du bi nekk quoi. xam nga li ma war a def yëpp dama koy def ci sama combat xëy na dafay fekk ni loolu lañ ma loolu lañ ma jox pour ma yóbbu koy sat mu jox ma ko ma yóbbu koy sat mais damay pare su may combat comme ñëpp pare seen combat ma. waaw ñu gis ne ñu gis nga wàcc da nga tarxiis wala daanu boobu nan la demee. waaw ñu bari dañuy wax ba xam ndax da nga tarxiis wala kii non tarxiisu ma parce que waaw parce que. Euh, géew bi bari dafa bëri suuf foofu géew bi dafa bëri suuf quoi benn instant bi may bi ma fi ma téye ci loxo bi ci téere bi élastique la li ma téye ci moom bariwul tuuti kese la quoi sama ñaari baaraam ñetti baaraam ñoo dugg boo laxasee sa loxo sa loxo bi day karamp xam nga li ma lay sa léegi bi may dóor di ko dóor di ko dóor benn instant bi dama ko xool mu mel ne lu xaw a kaawute quoi xam nga li ma la mu mel ne luy mel ne luy wàcc. waaw mu mel ne luy wàcc mu laal sa muy mu mel ne luy jëli sama tànk ma puus sama tànk mais puus sama tànk nag moom ci laa ci laa ci laa ci la xamu puus bi yëpp man daal comprendre ma foofu daal foofu la chute bi amee. waaw ah, comprendre ma. <laughs> gars yi ba tey ñu ne naaru bu waree bëri day ñëw fecc fecc yu rëy mais naaru nga foog ne fecc yu bëri yi est ce que doo ko wàññi parce que fecc yu bëri yi tamit est ce que du wàññi si sa li nga xamante ne moo boo waree jàkkaarloog sa adversaire du wàññi si yow dara fecc yu bëri. non du ma ko wàññi nag su ma ko yokkul du ma ko wàññi parce que làmb dafa am ñoo xamante ne nii ambiance moo leen indi ci làmb am na ñoo xam bu ñu seetaan ci naar ambiance su naar moo leen di indi ci làmb bi bu ambiance bi jeexee rek ñoom après mën nañ sax dem ñibbi ñoom da nga leen di jox liñ moom bu bëre bi jotee tamit nga jox bëre bi lim moom nekkul foofu parce que liggéeyoon nañ loo xamante ne nii war na mën a tax ñu def lépp te jour boobu sonn ma vraiment sonn ma ci sax ci combat bi aw ma ci benn coono sincèrement parler. non sonalu ma moom vraiment sonalu ma. man moom bul sonn saa yu mu ñëwee esat non dama koy fecc parce que am na ñoo xamante ne loolu la ñuy xaar ci man. gars yi day wax ne double moteur euh, tey yaa ko mag tey mag boobu ñu ñi di wax mun nga koo firnde. waaw maa ko mag ci ay at maa ko bu ñu maa ko mag at mais dañoo nit ñi dañoo comprendre lul teel a dugg ci làmb ak nekk mag man du ma mag maa mag double moteur ñu bëri eh, ñoo xamante ne nii jot naa laale ñoom ñu bari maa leen mag. maa leen mag ci ay at maa leen mag ci njëkk leen ci dugg ci làmb waaw mais nag nekkuñu ay mag yoo xamante ne nii mooy loolu de waaw. tey jii nga nekk ci équipe bi nga xamante ne équipe mën nañ ne équipe bu mag la mais tey gars yi euh, Onde Le Fou la ñuy wax ne mooy seen tête de file mais moom day toog ay 3 ans du bëre seen beleem lan la ay promoteurs yi ñoo dul ñëw lu bëri wala lan la. waaw ñun Onde Le Fou Onde Le mooy suñu mooy suñu tête de file maa ngi koy nuyuwaale di ko jox cër bi. parce que moom la ko yàlla jox nit ki lu ko yàlla jox rek da nga ko koy joxaat da koy delloo ba mat sëkk ba pare mu nekk suñu suñu tëdd fil ba pare nekku ñàkki ñaan nekku ñàkki ñaan chaque jour dañ koy ñaanal loolu yàlla yàlla may ko moom combat moom combat bëre parce que ci làmb la bokk mais gars yi xam nga parfois làmb léegi moo nekk loo xamante ne nii euh, maanaam affaire business la quoi. mais dootul làmb dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. lan moo tax affaire business la. waaw parce que bu nekkul woon affaire business pour man am na mbër yu bëri yoo xamante ne tey jii du ñu réer mais promoteur yi dañuy réeral mbër yu bëri mais Onde Le Fou ci làmb la bokk ak ñeneen ñeneen ñoo xamante ne tey jii déggoo leen xam nga te ci biir làmb lañ bokk nañ jël gars yi ñuy bëre nañ jël gars yi ñuy bëre parce que moom tamit dafa bokk ci làmb bokk ci làmb ñu ngi koy ñaanal yàlla te maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla jaa mu defal ko mu am combat. mais Naaru Sokaas gars yi dañuy faral di wax tamit ne sa carrière dafa mel ni lu taxaw booy xoosa dañuy ne dollar nga da ngay yéeg di wàcc problème bi lan la lan nga mën a wax gars yi nga xamante dañuy ne euh, Naaru Sokaas carrière am day yéeg di wàcc dollar la. waaw fii kuñ nit dollar la rek da ngay sant yàlla bu baax a baax a baax a a baax parce que yaakaar naa ni tey jii ki nga xamante ne nii moom la yàlla def mu nekk roi des arènes loolu lañ ko doon wax yàlla moo moo moo tëgg ay mbiram mu ko neexee xam nga. Euh, te fii ku fi ñeme ku nekk comme ni ma koy waxee dañ laa dee ah, ah, ah, ku fi ne ku ñuy wax dollar ku nekk rek am na loo xamante ni tey jii buñ ko ko taxawee dollar am peut-être mën naa am dootul feeñati day nekk ay euro <laughs> day nekk ay euro waaw moom day gën a day gën a monter rek mais du nekk loo xamante ni luy wàcc ñun dañoo manqué dañoo manqué xam sa cosaan dafa manqué ñu ko jàppale ci làmb parce que da ngay am combat yow kese yaa ci reyante sa bopp yaa jël sa alal lépp yaa koy def. xam nga bu fekkoon ne tey jii am nañ jàppale boobu noonu peut-être mën naa am duñ nekk ay dollars. maanaam seen entourage maanaam. moo des entourage bi desul dafa amul. amul quoi. est-ce que dem ngeen uti ji ñi nga xamante ne ñoo war a jàppale gars yi pour ñu leen di jàppale. mais ku nekk dañuy dem ci yow di la ko di la di la di la di la di wax suñuy suñuy combat xam nga li ma lay sa waaw di la wax suñuy combat mais xam nga Sénégal sa Sénégal rek affaire jikko yi sénégalais la ñoom da ngay dem ba yegg fi nga jëm ñu lay doog a teg loxo. feeg yeggoo duñ la teg loxo te boobu. li mag ñi di wax naan lu sotti am borom. lu sotti am borom noonu la demee dañuy bàyyi ba nga sottile après ñuy doog ñëw pour participer. combat bi sa combat bi nga xamante ne ci nga jóg mooy sa diggante ak Double Moteur noo ko dundee yaa ci doon financé sa xaalis bi nga xamante ne moom la la promoteur bi jot a jox ci nga nekkoon def say démarches yaa say nit. bu baax. kenn fekk si kenn fekk si ma ci waaw. yaa sa waa écurie. yaa ak suma soxna ak suma mbokk. mais pour ay autorités yi ay affaires yi nii non kenn fekk si ma ci waaw non non. bi nu demee nii tey boo ñu doon wax kan nga àndal loo ñuy wax. bon. politique bi politique bi tey boo ñu doon wax ci ban parti ngay yëngu lan ga ñuy wax wala looy wax. non man euh, euh, ah an kiiw ma maanaam du ma politicien quoi mais citoyen la citoyen sénégalais la et puis dama leen di suivre ñoom ñëpp ñoom ñëpp laay suivre xam j'aime bien Sonko quoi. Sonko waaw. j'aime bien Sonko parce que maanaam am na gis-gis quoi am na gis-gis te am na gëm-gëm xam nga maanaam ci li mu wone ci li mu wone am na gis-gis am na gëm-gëm ku ma estimé la estimé naa ko trop. nga ne boo ma wax ci waa lan nga leen waaw comme li ma la wax rek xam nga ñun dañ leen respecté trop respect boobu ñu leen jox nag dañu ko war a delloo ñun mbër yi parce que tamit euh, mbëru démb ak mbëru tey duñ benn quoi yeewu nañ xama xam nañ et bëgg nañ ku ñu respecté quoi mbër CNG daf ko war a nekkal bu baax a baax a baax a baax. ay affaire yu jaay ticket maanaam manager yi kii lu sax promoteur yi affaire yu jaay ticket yooyu dañ ko war a bàyyi ci làmb booy yi booy dañ leen war a bàyyi xel ci làmb. cent mille francs waru ko fayeeku ci làmb dafay jar sax mbër yu mag yi ñu dagg seen xaar ñuy jël ñu maanaam li leen di fay ci yenn mili millions yi ñu jël ko di ko delloo ci booy yi. mbër yu ndaw yi. waaw yu ndaw yi. mbër yu ndaw yi parce que booy yi dañuy ci làmb. làmb de maanaam ñu ci war a defaraat ñu ci CNG li mu war a defaraat ci làmb dafa bari dafa bari parce que booy tey jii nga gis booy boo xamante ne dafay am combat ñu jox ko ay boloku ticket pour mu jaay ko mu jaay ko ba pare ñëw delloo ko promoteur bi rien ko pour bëgg bëre am si ñoo xamante ne dañuy dem joxe xaalis pour ñu tëggal leen combat ba pare seen i mbokk sonn ci jël lépp defaat ko ci biir defaat ko ci biir làmb après moom ban njariñ la koy amal. te làmb bu dee fukk lañ kenn ki mooy kenn ki mooy kenn ki moo ciy jariñu làmb ji dafa taxaw instant bii nii. lan moo taxaw. parce que la làmb tey jii maanaam boo ñëwee Pikine boo ñëwee pikin tête de kese moo fay fayeeku tey ci làmb xoolal li ma lay wax bu baax a baax tête de file yi kese ñooy fayeeku ci làmb. maanaam ñu mag ñi. kese Eumeu Sène mooy fayeeku biir biir écurie am Boy Niang mooy fayeeku biir écurie am Ama Baldé mooy fayeeku biir écurie boo demee Fass Gris Bordeaux moo fay fayoo. yow kenn fayeeku fa amul mbër bu <laughs> mag amul. yow fayeekoo bi. xaar rek moo wax la li may wax moo Lo mooy fayeeku biir écurie bala Balla noonu la de noonu mais après léegi ñi si des pour lan du ñu fayeeku ci làmb ñooñu dañoo war a dañoo war a dañoo maanaam dañoo war a am ci ci am am. mais est ce kon mbër yu mag yooyu di fayeeku ñoo war a jàppale gëstu seen rakk yi. may leen ñoo war a bàyyi xel seen rakk yi et puis ñoom ñoo war di kaasal seen rakk yi. comme Gris Bordeaux ni muy def Gris taxawaay bi mu am dafa rafet man dama ko dama maanaam dama ko estimer ci li muy def parce que nit bu la bu la mbir teralee mbir mi la teral da nga koy delloo njukkal tey jii ñoom ñëpp ku ci nekk làmb moo la teral mais làmb li mu la teralee delloo ko njukkal xam nga tey jii nit nekkoo ci yoon nga ne ko nekkoo ci yoon du la teree am sa wërsëg li yàlla tudd ci yow ba pare xam nga. waaw nañ bàyyiwaat ñoom ñi nekk ci kaw nañ bàyyiwaat seen xel ci ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw te xeex bi nga xamante ne nii moom la Gris de xeex képp koo xamante ni mbër nga da ko ci war a fekk ci du ma ni Gris làmb sax laay wax xam nga mooy gars ñoom père Lac de rek ñoom père Kayre ñoom père Tafa Gueye ñoom Gris Bordeaux ñoom xaarim gajaga gars yooyu Pape Konaté gars yi loolu ñuy xeex noonu ñoom képp kuy mbër dañ ci war a taxaw jàppale leen ci. am seen waaw suñu njëriñ la. du ci du intérêt promoteur waxuñu intérêt CNG waxuñu intérêt intérêt mbër la ñuy wax mais pourquoi ñoom du ñu wàcc ci jàppale leen wala ñoom dañuy yaakaar ne bu ñu bu ñu jàppalee seen rakk yi ñoom après ñoom dañuy torox affaire bi nekkul foofu quoi nañu wàcc si jàppale seen frères yi te xam ni seen ñoom fi ñu jaar ñoom war nañu mën a xam ni làmb dafa metti la fa ñu jaar ñu yàlla seen i doom jaar fa mais seeni i bu ñu ci nekkee dañ leen ci war a jàppale. xam nga parce que tey jii koo ci laaj danaan la bëgguma sama doom nekk mbër li tax bëggoo sa doom nekk mbër parce que xam nga ni mbër dafa metti nekk mbër dafa metti mais nga ay frères yoo xamante ne dañ cee nekk mais taxawu leen jàppale leen du la wàññi dara oui. naaru euh, euh, fan nga teg sa bët bi fu mu toll nii yan mbër nga zible. non man damay bëre rek bëre mooy suma métier mooy suma gagne-pain. ñëw nga damay bi nga fekk nii pare naa bu yàgg bi ma paree ci combat bi après dama commencé waat nekkaat su ma yan mbër nga fi bàyyi. Oh, du ma bëre kenn koo xamante ne nii Pikine nga dëkk du ma bëre ak yow. par Pikine daal. Alioune Seye suma doom yaay la. dëkk mais suma xarit la sama doomu ndey la waaw am na ay mbër yoo xamante ne yaakaaruma ni tamit làmb dina ma boole teeg ñoom quoi. Euh, am naa ci benn frère koo xamante ne nii suma gaañ la waaw. mooy li ma rek Alioune Seye numéro 2 Thiat Boy Bambara Thiat Boy Bambara kooku suma gaañ la suma frère la waaw man ak moom dañuy déggoo lu bare bare bare nit ku baax. bu ngeen bëggee kaas ne làmb ji dafa taxaw te yéen seen biir nanguwu leen bëre ku ci nekk di ut doomu ndey xarit du ngeen bëre te yéen yéen a war a mun a mayante xaalis yéen a mun a mayante xaalis pour teralante seen biir. ku nekk sa teraanga sa kër nga ko yóbbu mais sport la war ngeen mun a bëre bu ngeen paree ngeen àndaat ci yàq ji yaatu na. du ñaari mbër yooyu rek ñoo fi nekk wala man kese maa fi nekk mbër boobu quoi xamal li ma lay sa waaw parce parfois nit ki fi ngay jaar ak moom man noonu laa mel man suma suma su ma ngor moo ma gënal ay milliards man xam nga su ngor moo ma gënal ay milliards am na loo xamante ne nii ngor dootu la ko sa ngor moo la ko dul mayati mais yoo xamante ne koy seq ak doomu aadama sa ngor moo la dul mayati ngay jaaxaarloo moom alal maanaam xaalis di leen boole wala dara. noonu la demee. combat Boy Niang Lac te boo ñu doon wax lan nga ñuy wax en tant que ñoom ñaar. waaw mais combat la Boy Niang am na combat Lac de tamit am na combat parce que Boy Niang mbër la boo xamante ne nii dimensionnel la gars yi comprendre ñu ko ba tey multidimensionnel la mën naa bett ñu bari xam naa ko bu baax a baax parce que am nañ am nañ fu ñu jot a jaar affaire yooyu noonu quoi. ngeen jotee ñoo bokkoon écurie Pikine mbooloo waaw xam naa ko bu baax gars yi comprendre ñu ko ba tey mais mën naa daan ku ne waaw mais Lac de Guiers numéro 2 champion la champion la parce que man fi ko gars yi teg sax ak man fi ma ko teg du benn. dama ko teg ku mën a bëre. parce que nit koo xamante ne nii loo bëgg def lu nekk xam na ko xam nga ba boo ko defee mu mën koo dindi te moom saa yu defee rek. maanaam bu defee li muy def mu réussir moo ëpp que li mu li mu li mu li muy def te du réussir gaaw la def mais saa yu defee rek mu réussir xam nga li ma lay sa waaw ko waa tëlewul maanaam am tëlewul xam-xamu bëre même bu fekkee dafa tële bëre mais tëlewul xam-xamu bëre. nee nañ moo fi gën a ah, parce que tëlewul xam-xamu bëre. mbër bi la dàq bëre moom mooy mbër mi la dàq defendre koo xamante ni loo def mu dundi ko bokk nañ ci loolu bokk na ci mandarga yi mën a bëre macha allah. tey ba ma doon wax relation yi nga am Pikine ak mbër yi loo may wax. Euh, Pikine euh, ñëpp jàmm laa seex ak ñoom ñëpp ah, jàmm laa seex ak ñoom. Eumeu Sène jàmm laa seex ak moom. Boy Niang. jàmm laa seex ak moom. Ama waaw mais suma waa écurie ñooy sumay gaañ sama waa écurie ñooy sumay gaañ sa waa écurie ñooy say lonko ñoom ñooy sumay lonko ñoom ñooy sumay gaañ parce que su ma amee combat ñoom laay gis su ma amee lu ma metti ñoom laay gis su ma amee lu ma neex ñoom laay gis non moom dafa nekk yi kii man boobu bi ñuy bokk écurie boobu fekk na ñu nekk pikin mbooloo Pikine mbooloo lañ bokkoon écurie quoi après man ma dem euh, suñu suñu koñ ubbi fa benn écurie muy xam sa cosaan boobu ma dem xam sa cosaan après moom yàggul tuuti ci la jóge foofu ñu créé ñoom seen écurie boo Niang waaw. tey jii nii ban message ngay lancé sa fans yi sa soppe ñi la bëgg di la ci li nga xamante ne mooy défaite bi nga ji. leen di leen euh, masaw avant tout parce que làmb dafa metti di masaw képp koo xamante ni rek soo noon nga suma combat maa ngi lay masaw bu baax a baax te di leen bu baax a baax a baax a baax jàmm bi pexeem la yor mais buur yàlla mooy dogal sport lañ nekk day am ku daan am ku daanu wala ñu machine la xam nga mais li ci am solo moom mooy sa jom sa ngor saa yoo ñëwee rek wane ko te yaakaar naa ni yaakaar naa ni wane nañ suñu jom wane nañ suñu ngor mais am défaite ak am victoire loolu affaire yàlla suñu borom la moom mooy seet lu ko neex mu def ko xam maa leen ci nag jégalu bu baax a baax di leen ci baalu a baax di leen wax ni leen ndam laa leen bëggaloon parce que lépp loo xamante ne ko doon maye rek bis boobu defoon nañ ko mais loolu la suñu borom dogal maa leen di masawu ñoom ñëpp di képp koo xamante ni rek jàppoon nga ci combat bi du nuyu waa Pikine yëpp du nuyu suma waa ci affaire yi trop ah waaw ñëpp ñoo xamante ni jàpp nañ ci maa leen di nuyu suma waa kër yëpp suma paa suma mère suma doom bàyyi xam nga ñëpp daal suma suma suma suma waa waa waa waa. dañuy ñëw dañuy ñëw si nuyoo bi doguma la tey jii nii comme que nee nga làmb bi dafa taxaw business la écurie bu ne tête de file mooy fayeeku tey lan ngay wax promoteur yi nga xamante ne ñooy tëgg combat. waaw ñoom ñu bàyyi xel ci xale yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci suuf ñu bàyyi si xel bu baax a baax sponsor yi sponsor yi nañ jàppale promoteurs yi sponsor yi dañoo war a ñëw bokk ci làmb. daan naa dégg Zoss di ko di ko di ko wax lu bari muy jiir li jëm ci wàllu téléphonique yi ñoom ñëpp dañoo war a dugg ci làmp parce que ñun ñoo koy cons ñiy seetaan làmb ñoom ñooy cons loolu kon ñoom dañoo war a bokk ci dañoo war a ñëw di jàppale promoteurs yi force du ay kii ak affaire yooyu force dañ cee war a jàpp xam nga butéel yi gars yi di yóbbu ci làmb ji am na am na kii bu ci nekk mais ñooñu dañ ci war a jàpp dañoo làmb ñëpp dañ cee war a teg seen loxo c'est vrai butéel gisoo kii yi bëgguma tudd seen kii yi affaire yooyu noonu xam nga mais butéel yi dañoo war a ñëw bokk ci làmb di ci sponsor di jël seen alal di leen ci waaw di ci jàpp te xam ne ñoom am na loo xamante ni mbër yi ñu leen koy feeñalal waaw promoteurs yi ñu bàyyi xel ci xale yi te combat xale yi day neex de. bi nga demee di bëre si arène nationale bi ban yëg-yëg nga am ak loo gis. damaa kontaan xam nga lu tax parce que. jour boobu ni mu mel làmb mosu koo mel ci ci arène bi xam nga nga ñëw bëre mu mel noonu loolu mbégte la mbégte la. xam nga ne gars bëgg macha allah kon war ta yomb. waaw mais man dama mën làmb. moo fekk amoon bëree mu neex déggoo ma de. da mën bës <laughs> ma lay jaajëfal di la kontaanee waat rek te di wax nga tàggatoo àdduna soppey ak xarit yi. waaw fëlaale tàggatoo. comme ni nga ko waxee maa ngi nuyu suma soxna bu baax a baax ah. borom le 3. maa ngi lay nuyu <laughs> di ziar bu baax a baax maa ngi koy nuyu di nuyu mbokkam yëpp sincèrement parlé jàpp nañ ci affaire bu baax a baax ah. di nuyu suma famille maa ngi nuyu suma doom baay yëpp. di leen bëggee bu baax a baax a baax a baax ak ñi nga xamante ne ñoo bokk ndey ak baay yi su may raxe ñu kon ñu sonn ci man trop di nuyu suma waa groupe waa Kër Naaru Sogaas maa leen nuyu bu baax waa xam sa cosaan yëpp maa leen di nuyu di nuyu waa saal bi mooy gaa yëpp dañuy jàpp ci affaire yi fii laa làqu woon gaan bi moo ma yoroon def ci man lu metti moo tax combat bi ma am neneen nu ma mel xam nga nuyu waa géejawaay dama xataluñ ma ah? tent bi dalaa ah, kii dafa nice <laughs> noonu la demee xam nga di nuyu suma gaay yi waa Kër Naaru Sogaas maa leen di ziar ñoom ñëpp Zal maa ngi koy nuyu bu baax a baax ah Masey Diop maa ngi koy nuyu di nuyu Aliou Mané suma doom suma xarit suma lépp nday caane waa Kër Naaru Sogaas yëpp maa leen di nuyu bu baax a baax Jibéeri Gaye seen homme de bonne famille Alaaji Gaye maa leen di nuyu ñoom ñëpp di leen bëggee bu baax baax waa Géejawaay nag maa leen di nuyu mention spéciale parce que bi ma ñëwee xataluñ ma quoi. dama ñëw ñu yaatal ma mel mu mel ni man fii laa dëkk waaw maa leen di jaar bu baax a baax et puis leen bëggee yéen tamit xam ci seet bi ngeen di seet si woon ci saal bi pël bu rafet. yéen lañ fi nekkal. voilà comme ni ma leen ko waxee woon nee naa leen seen émission Peul Fun Time nii laa koy defee à chaque fois fu mbër na ma fekk la fa fu artiste na ma fekk la fa fu waay na ma fekk la fa. Euh, di ñaanal ñëpp jàmm comme ni ma ko faral di waxee noonu laa koy waxaate nee naa du ma taay di ñaanal ñi nga xamante ne dañoo dëdd. yàlla na yàlla oyofal suuf si seen kaw xare leen ci àjjana fi daw si ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yàlla na yàlla fëgg seen bopp euh, yëkkati leen ñu dellu seen i dellu seen i activité ñi nga xamante ne caabi da leen a féete ginnaaw tamit yàlla na leen fa yàlla génnee bañ dellu seen activité nee naa leen nattu du wees doomu aadama ak nattu ñu ànd yàlla mooy sàkk doomu aadama boole ko natt mais loo mun mu jeex amul lu dul jeex di jaajëfal Daniel sama caméraman bu ñaawul bi <laughs> dama ko fàtte woon quoi mais Mambala Mambala bu Pikine mbooloo mention spéciale pour moom fii lay entraîné man moom ñoo bokk salle bi di fa entraîné fii chaque jour ñooy ànd fii ñooy ànd dîner ñooy ànd géej maa ngi koy ñaanal combat bi mu jëm yal na ko yàlla may ndam yal na ko yàlla suturaal may ko ndam waaw jàpp na ci affaire yi bu baax a baax a baax a baax a baax rek <laughs> sama caméraman bu ñaawul bi nee naa la yàlla na defal jàmm yàlla wéral cër yi di big up sama rak sama xarit muy Kara borom seen onglerie kenn du moom sama coach yàlla na sa jàmm yàgg baax gën riis jàmm laa lay ñaanal place bi nekk ay place yi place di big up ñëpp sama xarit Séri Mara Mariane borom Thiès di kontaanee ñëpp képp kuy bëggee pël bu rafet maa ngi lay kontaane di la bëggee surtout suñu mbokk internet kenn du yéen du ma taay di leen jaajëfal man nag ku bëgg bëgg naa la ku ma bëgg bëgg naa la àdduna amul solo nee naa leen lépp day jeex nañ leen rafetal xool yi yaatal ko te xam ne ay fàttaliku dong lay mujj ñu yéenante jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj te jàmm jàmm du doy daal yàlla na jàmm yàgg di leen jox dig daje si yeneen ndaanaan ak yeneen programme rek foofu daal di toj ah S24 ca kaw